di nuyu aussi jamono ji ñi nga xamante ne ñi ngi toog seen kër dañu suivre si euh, Walf TV. Mm. mu di émission mag bi la di réveil amati mbégte encore une fois ñëw toog sa plateau. na fay bu baax euh, tey moom ñi ngi dalal kenn koo xamante ni boxeur la. Euh, moo tax tey mën nañ ne Sénégal turam jub si monde bi. parce que mm-hmm. Sénégal mooy champion du monde en titre. Mm. formateur la léegi. Mm-hmm. Alioune Sarr Alioune ma bàyyi la nga nuyoog ñu ñuy seetaan. salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd coach Alioune Sarr. Mhm. nekk adjoint entraîneur national kickboxing. bu mhm. nekk coach bip boxing. Mhm. justement club bi nga nekk mooy BIP. Mm, brigade d' intervention polyvalente kon gën ko xamee noonu si turam. Euh, tey ngeen préparé champion waaw noonu la ñuy ñëw ci ci waxtaan bi. léegi donc euh, sport ak euh, Djibril ña ànd ceeg invité ma coach Aliou Sarr Clinique Sport Djibril Niang voilà mi ngi noonu Fatou ñu amati encore une fois plaisir ñëwaat fii si plateau bi tey ni ñu ko waxee léegi rek ñu am benn invité boo xamante ni mën nañ ne jot na marqué empreinte am ndax formé nit mu dem si àdduna bi jël euh, titre champion euh, kon loolu déjà mbégte bu am solo la rawatina kon surtout réew Sénégal bi nga xamante ni euh, turam moo gën a jugaat kon compétition bi ñu ngi ko doon amalee si Ouzbékistan coach su déjà bañ la dalalee ak jàmm ngeen préparé athlète yóbbu leen Ouzbékistan ñu nekkoon 3 Euh, kenn ki finalu perte ko keneen ka si des di Tafsir Ba Mohamed euh, nekk champion du monde si kickboxing déjà est-ce que mën nga ñëwaat balaa ñoo ñëw si compétition bi. wàccaay bi laataa ñu doon dem si Ouzbékistan. waaw ah, maa ngi maa ngi remercier suñu président fédération muy Yaxya Diop. di remercier tamit euh, suñu directeur technique maître Ibrahima Touré. donc di remercier fédération bi yëpp parce que c'était c'était pas évident xawoon difficile trop. mais bon président bi moom génne woon na moyen yëpp tegoon na ko pour que ñu demoon ci compétition bu parce que amoon nañ confiance ci athlètes yi et ñun ñëpp équipe na fédération bi ba ñu woon ci ginnaaw athlètes yi franchement donc euh, préparation bi def nañ ko parce que ñun boo xoolee suñu système de travail presque mën nañ wax ne année bi yëpp presque année bi yëpp presque mën naa la wax que ne trois deux mois lañ ci dul entraîner mais ñun dañuy entraîner tout le temps pour préparer tout le temps muy niveau national international équipe nationale équipe nationale bi man maa fa Famara Famara Touré moom mooy entraîneur national man maay adjoint man Alioune Sarr donc ñoo nekk ci équipe nationale bi quoi. donc liggéey bi yomb métti jafewul euh, yombul woon mett nekkoon na liggéey boo xam ne liggéey bu métti la woon mais alhamdulilah yàlla dimbali nañu pour wax la préparation yi man ci laa dem ci laa amee fracture ba mu desee lu dul deux jours trois jours pour que ñu dem man ci laa gaañoo quoi. donc dañ nekkoon def dernier réglage yi kon nekkul woon lu yomb bañ demee Ouzbékistan tamit. ñetti dëkk ñoo représenté woon Sénégal ñoo représenté woon Afrique muy Sénégal Afrique du Sud ak Algérie donc boxeurs yi matoon nañ trois cent soixante boxeurs donc mu nekkoon ay qualification qualification qualification ba kuréel ngay yegg final donc Tafsir Ba euh, Ndeye Khady Diallo moom moo njëkk dem même pas un an demoon Italie demoon championnat du monde ba mu demee championnat du monde mu gagné woon combat yi ba juste final ci la perte combat am donc mu nekk vice champion du monde Moustapha Lay moom moo dem moom huitième la la la la quart la la toogee quoi mais Ndeye Ndeye Khady Diallo dem na tamit ba final gagné na combat am yëpp ba final mu perte mu mu jëlaat titre vice champion du monde Tafsir Ba. donc ki mu dajaloon donc c'est pas évident mu gagné woon ko parce que kooku mosul perte combat mu jël na trois fois champion d'Afrique. surtout que mu doon joué à domicile devant son public à domicile à domicile bien sûr. jël na trois fois champion du monde. donc euh, pertul combat ba léegi mais amoon nañ mentalité bi amoon nañ courage bi xamoon nañ fi li nekkoon suñu ginnaaw xamoon nañ ne Sénégal a ngi suñu ginnaaw xamoon nañ ne Afrique ñu ngi suñu ginnaaw te suñu bët pour pour ñu mënoon mesurer suñu bopp il faut ñu daje woon nag champion yi donc def nañ ko. donc loolu lépp tamit amoon nañ si soutien wu soutien population bi muy dëkk bi ñëpp ñu dem message yu ñu ñaanal beneen bis toog maa ngi remercier suñu président euh, euh, Diomaye Faye maa ngi koy remercier bu baax baax bu baax baax ak ministre am parce que tuuti na ci encouragé nañ loolu am na effet bu rëy bu mu joué ci ñun parce que pour la première fois ñu defal ñu loolu donc mu nekkoon lu rëy rëy rëy ci ñun amoon sentiroon nañ ne nit ñu ngi suñu ginnaaw daal le fait que président tuuti ci ñun rek donc nekkoon na lu rëy ci ñun donc motivé nañ tamit quoi. Tafsir yow yaa ko doon préparé laataa muy dem si compétition bi est-ce que performance yi nga xam te moom la réalisé doon na loo xamante ni yow bett na la carrément. Tafsir Tafsir sama sama élève la sama maa ko formé en kickboxing Tafsir champion la Tafsir dina fi indiwaat yeneen yeneen yeneen titre incha allah parce que pour que nga nekk champion c'est facile c'est pas facile donc champion d'abord li ci jiitu mooy discipline boo amee discipline nga am sérieux nga am confiance sa du prix am amour ci li ngay def amour tafsir yooyu yëpp lu mobiliser tafsir quatre séances lay def par donc moom athlète la moom du néeg entraînement du ko caaxaane ba pare mën nañu toog suba ngoon jot nga koy jox benn leçon ba fajar tant que deful leçon bi du du arrêté tafsir noonu la mel donc voilà mu nekk gos boo xam ne ku ma respecté la koo xam ne voilà am na am na respect ci ay coacham te titre bii nii pour te dire ba ñu ñëwee même pas une semaine benn yoon lañ ko feet di démb ñu ngi woon regroupement du dugaat nañ entraînement pour préparer décembre donc pour war na la ñun victoire ñu ngi koy feeti ci deux jours trois jours maximum ñu fàttewaat ko retourné waat suñuy préparation parce que Sénégal la ñuy représenté te bëgguñu décevoir Sénégal donc bu ñu yéeg dañu d'habitude dama leen di wax naan leen être champion c'est facile mais demeurer d'être champion c'est ça champion nga dem gagner titre benn titre te kon te nga gagner titre bi yomb na mais nga téye titre nga téye ko ci ça loolu mooy champion donc moo tax ci loolu lañ nekk pour gérer waat cap bi. Tafsir également gis nañ dafa dafa poly polyvalent noonu la ñu ko mën a tuddee bu fekkoon jour la. Mm. dañ naan mën a def euh, arrière gauche mën a def attaquant mën a def milieu de terrain parce que gis nañ Tafsir bokk na euh, si prochain euh, sénégalais yoo xamante ne ñooy représenté Sénégal si championnat d' Afrique yi di ñëw. Mm. mu nekk tamit si beneen xeetu discipline encore cette phase mais parce que bi ba boxe la. Mm. bi ko ci boxing la jël champion du monde. mais boxe polyvalence boobu noonu ci côté tafsir. waaw tafsir bon tafsir mu ngi nekkaat si mu ngi def ci yu bëri mu ngi def yu bëri discipline yu bëri la taf def taf la taf li muy bañ mo sadir à dire moom sportif la quoi moom na entraîné lii mën na ci dara daf ciy def lii moom noonu la mere bu dee boxe anglaise champion bu mag a mag la moom mooy champion d'Afrique mooy champion de zone de en boxe anglaise instant yi mu ngi préparé pour demaat euh, championnat d' Afrique yi di ñaanal suñu coach muy équipe nationale boo liggéey ak euh, président Mamour ak équipe am ak staff am. ak ñoom Malick Niang waaw voilà ak Malick Niang président Sarr ñëpp njaay Gaucher. ak Modou Mamoun le président. waaw voilà président bi mooy Mamour Sène. Mamour Sène mu nekk guerrier nekk président boo xam ne vraiment bëgg na li muy def. donc di leen di ñaanal yàlla may leen ndam bu leer bu set wecc may ñu ko ñun Sénégal quoi Tafsir. mën naa wax que ni même MMA champion la MMA perdagul combat MMA Sanda mooy champion d'Afrique Tafsir yàlla moo ko préparé pour que mu nekk champion chance la ci Sénégal Tafsir Tafsir discipline bu mu laal moom moo nekk ci kaw donc li la koy may mooy motivation li la koy may mooy courage li la koy may mooy gëm sa bopp xam yow yaay kan Tafsir secret moom mooy dafa dég day déglu ay coacham day déglu ay coach am démb ba guddi gi ba mu ñëwee guddi gi yëpp ñu ngi wax buy tëdd sax dañuy déggante téléphone donc mu nekk gosse boo xam ne bu sérieux koo xam ne gëm na li muy def am na jom beneen bis li may wax mooy ay tafsir ñoo fi nekk fii tafsir yu bëri ñu ngi fi en kickboxing dafa am ay boy yoo xam ne franchement boy yu am talent boy yoo xam ne fii chance lañ manqué woon ñu jox leen tuuti chance ñu dem parce que li tax may insister tout le temps suñu président c'était difficile c'était difficile dañu génn ci période bu métti boo xam ne pour que ñu demoon compétition internationale sax c'était difficile ci jamono jooju président mooy jël moyen jël lépp moo ñu daan yóbbu ñuy dem di ñëw dem nañ fi Côte d'Ivoire championnat d'Afrique ñuy président mu ngi yóbbu woon neuf boxeurs ba ñëwee huit titres yëpp lañu indi yëpp ay médaille or lañu indi dem nañ fi Johannesburg Afrique du Sud président mu ñu yóbbu ba ñu demee ba ñuy ñëw président ak DTN ba ñuy ñëw titre yëpp lañu indi champion d'Afrique muy Alsane Ba sama kooku tamit muy vice champion du monde. Euh, kickboxing sama élève la man maa ko formé ci moom la nekk moom mooy champion d'Afrique en titre tamit kickboxing donc moom la ñuy préparé waat mu am Johannesburg instant nii donc titre yëpp yàlla mu ngi ñuy dimbali à chaque fois bu ñu génnee rek titre bu teg ci Afrique fii moom ñu ngi koy rafle donc dem nañ ba benn instant. foo focus suñ sax si Afrique international fii grand yi nekk fii champion yu mag a mag yi nekk fa lañ teg suñ suñu bët te fa lañ bëgg bokk te dugg nañ ci cercle bi dañ bëgg nag suñu yeneen athlètes yëpp ñu préparer leen ñu dem fu ñu tuddee kickboxing Sénégal kickboxing dafa metti dafa métti ku koy def rek jàmbaar donc fu ñu tuddee kickboxing wu Sénégal muy thaïlandais yi fi ñu nekk fii américain yi nga xam ne ñooy meilleurs yi ñu dem mesurer ak ñoom ñun suñu but loolu la suñu président loolu la beneen bis topp dañuy ñaan yàlla suñu dañu bëgg bokk ci top trois meilleures fédérations yi meilleures fédérations yi nekk Sénégal dañ bëgg suñu féri ne bokk ci te ñu ngi ci liggéey bi président bi gëm nañ te équipe bi yëpp ay jeunes lañ ñun ñëpp ay jeunes lañ bi ñun man maa ko mag donc ñun ñëpp ay jeunes lañ ay ndaw lañ gëm nañ ko et puis benn bopp lañ ñun am benn bopp lañ benn bloc lañ kilifa lañ am démb ak ma woo dama ne xaar ma woo président woo DTN. Mm. donc pour wax la ne ñun li ñuy def rek dañ koy def bloc mooy suñu ndam quoi. donc mhm. est ce que mën nañ seen aussi boxe yegg tey fu kickboxing toll. ndax boxe bu ñuy xool championnat d' Afrique 30 ans ngi nii ñuy daw si titre euh, titre d' Afrique bi maanaam mhm. médaille d'or bi. parce que euh, bi passé compétition passé en dem ñu éliminé ñu. Mhm. bi que moo yaakaar ak ak euh, tafsir bii di représenté encore une fois Sénégal mu permettre Sénégal am médaille d'or waaw man anglaise xam naa ci lu bari parce que maa yor équipe olympique bi. donc président anglaise li ma lay wax tamit mooy président bi guerrier jàmbaar la mu ngi jël ay moyens di def quoi. te tamit anglais tamit am na ay coach yu am niveau coach yoo xam ne am nañu niveau trop trop trop ay Bollé Thierno Diallo Ndiaye Gaucher Luc Luc Asfali donc Tidiane fay donc Tidiane bëri na dafa bëri ay coach Mayakor dafa bëri coach yoo xam ne am ñu niveau bi trop su ma ñëwee ci boxeur yi mën naa wax que ni Afrique fii nii benn boxeur mënuñu. des fois daa am yoo xam ne ay détails yu ndaw yoo xam ne moo ñuy tere. ba dernier dañuy dem ba final après mu échappé muy ñàkk dafa dafa am importance chaque fois bu compétition amee nga dem international fu mu am nga dem donc tout le temps boxeur jàpp gant la ñuy wax boxeur tant que mu ngi yëg ci di boxe rek day nekk ci niveau koo booleel mun na ko gagné kii boxing chance boobu la am bu ko anglaise amee rek ñu accompagner leen rek donc mën nañu fuur champion nekk njër beneen bis boobu mooy bii nii am naa yaakaar ni bu ñuy ñëw ci ci kàttanu yàlla dinañ indi titre yëpp parce que toutes les conditions sont réunies instant yi booy yi ñu ci forme parce que am na ay compétitions yu passé yu amoon yoo xam ne amoon na temps yëpp beneen bis topp mooy Tafsir titre bi mu indi fii waat na Sénégal képp kuy athlète mooy motivé na la lépp lu muy def Tafsir compétition bi moo ko gën a bëgg ñëpp compétition bi nii da waxuma la rêve sax dafa nekk ci boppam te incha allah xam naa ko bu demee du abandonné du bàyyi même buy dee ci ligne bi sax day dee ci ligne bi mais lépp tous les moyens sont bons mais dina ak ay moroom muy Alsan Ba. muy ta muy capitaine Alphonse Tidiane bari na boo yi fa nekk bari na ma Pape Mamour bari na quoi donc boo yëpp am nañu niveau. am na ñu yaakaar bu baax boole coach bu mag la sélection bi mu def baax na. selection bi parce que bu ñu defee sélection après dañuy consulter waat ñun coach national yi. ñu toog waxtaan lii moom lii ak lii ak lii ak ñu xool ñi nga xam ne kiiwul ñu waxtaan ci ay Kandji ngi fa Djibi Seck nga fa. donc bu ñu waxtaanee ñun ñëpp après ñu xool ne sélection bi ku am lu muy gis ne ah man catégorie bii kat je trouve que ki ñu waxtaanee ko ñu xool ba génnee meilleur parce que dañu jël entraîneur national yëpp ñu toog ñu xool teg kii bi ñu xool bu ñu xoolee ñu ne lii la ñu ànd ci korog bokkoon naa ci ñuy valider man personnellement valider naa équipe bi nit te équipe bi pour man seen le équipe quoi Mm-hmm. donc coach boole bi nga xam te ne parfois mooy entraîner Modou le roi des ah. arènes moo nekk donc son préparateur en boxe déjà gis nañ boxe tamit euh, ndaw ñi léegi ñi ngi siy gën a intégré euh, mm-hmm. imprégné wu mm-hmm. puisque boo xoolee année yi si ginnaaw boxe Sénégal daana ko dégg fenn daana ñoom ay représentant léegi lan nga yaakaar ni si wàllum encadrement bi la si wàllum euh, formateur yi la wala ndaw ñi tey ñoo ko su ñoo ko song lan moo waral tey boxe tey mu am benn dayoo bi tey nit ñu commencé koo bëgg ji bi man man man mën naa wax man maa ngi ko ko commencé boxe box dañu yàgg liggéey dañu nekkoon dans l'ombre di liggéey dañu yàgg def lu nekk pour que ñu réussir yeeg stade bi muy sunu président yi muy sunu njiit yi dañu yàgg def pour que boxe bi lu nekk lu nekkoon duggoon nañ ci feeñul woon mais instant yi nii bu compétition yi commencé bari ñu commencé di génne international commencé indi di titre ñëpp dañuy intégré wu ci ci boxe yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet parce que li ngeen di def nii. yéen a ngi véhiculer message bi booy yi ñu ngi koy gis man mii dañ may woo cours particulier yu bëri. sama club dañ may woo ñu bëri dañu bëgg inscrire te xam nañ luy njëriñ te dañu toll ci jamono joo xam ne sport c'est recommandé. boxe boxe mën naa wax thérapie thérapie la quoi boxe day faj. boo stressé woo boo demee def boxe boo ñëwee da ngay da nekkaat. c'est-à-dire li muy def ci doomu aadama dafa bari quoi. boxe day dalay permettre ci lu bari quoi. peut-être xam naa dernier point bi rek Fatou. Mhm. ak club bi situation yi foofu nan la fay demee tam bon peut-être xam naa rek. Ah. Fatou ak Seydina fekkee intéressé wu nañ xam naa ñu jëm leen fa. inscrire rek nga jëm leen <laughs> ngeen leen encadré quoi. incha allah loolu moom hmm. dina ma neex ma wax sama club quoi. waaw sama club mu ngi tudd Big Boxing Club. Hmm. suñu président mu ngi tudd maa président Malick di nuyu président Ndaw di nuyu Détene Ibrahima Touré di nuyu Moulay Moulay Top maa ngi koy nuyu bu baax a baax. mu nekk jàmbaar ñi ma lay limal noonu avant bu dul ñooñu bépp ñu indi champion d'Afrique ñu indi champion du monde mënuñu indi dara. ak Baldé. parce que ñoom tout le temps seen moyen dañuy génnee xaalis dañuy toog ne bëgg nañ defaraat club bi ñu génne xaalis bu bari jënd ay sac de frappe jënd lépp jënd lépp. Hmm. manqué wu ñu dara dañuy wax booy bu ñu fay pour bépp. très rarement lay booy di fay. donc ñoom ñoo gérer lépp luy club bi di def di liggéey ba pare yàlla def tamit ñu am ay booy ay éléments ay boxeurs yoo xam ne depuis ba ñu nekkee xale lañ nekk ba âge lañ fa nekk ñu former leen initier leen ñoom ñëpp ñu nekk ay champion donc loolu lépp bu amee c'est grâce à ñi nekk ci ginnaaw muy présent club bi ak comme waa bi ñuy permettre ñu mën a nekk foofu di entraîner ak ñoom ba pare ñoom waa bi ñun man maa leen di entraîner tamit quoi. donc maa ngi leen di woo Fatou xam naa di ngeen ñëw. d'accord incha allah Fatou moom dina ñëw jaaxal mais Fatou. waaw man dinaa ñëw bi xam kon si plateau bi tey vraiment mbégte la woon. waaw waaw. Fatou mi ngi noonu waaw kaddu gu mujj kon bu dee am nga kaddu gu mujj. mais maa ngi kontaan maa ngi leen di kontaan. waaw. di remercier Sénégal yëpp tamit maa ngi leen di remercier ci ci ci jàppale gi ñuy jàppale donc di wax ngeen ñaanal ñu ci championnat d'Afrique yi décembre bi la demaat euh, c'est Kinshasa non non Johannesburg bi ak championnat du monde ok donc merci beaucoup coach Alioune Sarr merci Djibril Niang merci Fatou beneen lundi incha allah